li si yéene kaay yi aljuma ji dee nar naa tàng ca Mbàkke ak lu ko wër waaw waaw ndax bés bi la jour moo ñu ko xamal ne préfet bu Mbàkke dafa tere ay ñooñu Ousmane Sonko deneen bu ñu mitin waaye ñoom de neneen dineen mitin ba mu neex sar xolle fel felaale ci biir journal Ousmane Sonko mi ngi ñuy xamal ne ak i njoñam ñoom de dañuy gëmmu taxlu ba def lu ñu def ba noppi témoin ñëw di ko témoin les échos mi ngi ñuy xamal ne Ousmane Sonko tey jii ci aljuma ji Touba la koy julli jee moom jiital Pastef ba tey mi ngi xamle ne la woon woon ni na ndax président Macky Sall mënul nekk di dox ay soxlaam ba noppi di tere ñeneen ñuy doxi seen soxla te ñoom bu jógee koo foofu dina jàpp diaspora bi ngir amal fa ay tukkim nemmeekoom aha seetaan moo dàq ci ndaje bu ñu jógee Mbàkke fa ñuy dem Thiès seet Idrissa Seck nu muy gënalee Sall ngaari lam tooro moom Idrissa Seck moomee mu ngi junj kii di président Macky Sall ci troisième mandat maanaam di ko def message codé loole nag fay fàttali président Macky Sall ci digganteem ak Abdoulaye Wade ci atum 2011 ubbi l'observateur mi ngi ñuy xamal ne kàddu Idrissa Seck ndamarkador googe fay tegal yoon kii di président Macky Sall ah loolu lay nuróol de ndax fës na ci ay kàddoom dañuy desandi ci Thiès ba tey benn dëkk ñaari gaar waaye dafa mel ni de président Macky Sall bëgg na kaa def ñetti gaar ah loolu neex na di ak junniy milliards ak juróomi téeméer la jël dugal ko ci atum 2023 jàpp 2025 ak ñaar fukki mesures yu mu jël laas ak le soleil ne Idrissa Seck de lu mu yàq defaraat ko tagg ya mu tagg président Macky Sall baax baaxam lu nekk la ko waxal lii de mooy politique Sénégal té juroom ñaari bakkan libération naan lu doy war lañu gis accident bu amoon ci sibir Sébikotane juroomi doomu adama ñakkon seen bakkan bañu génné ñu yoyé lañu gis Modou Cissé dëkk bétagne mu làqu ca wet réewon ay fan dañuy desandi ca ties ba tay benn dëkk ñaari gal way dafa melni dé de président Macky Sall bëgg na caa yok ni benen gàdd muy ñetti ah lool neex na di ak juni milliard ak juroomi témèr la jël def ko ci atum 2023 japp 2025 ak ñaar fukki mesure yu mu jël las ak le soleil di ñu wax ne Idrissa Seck dé lu mu yaqku taggaat ko tagg gi mu tagg président Macky Sall baax baaxam lu nekk mu waxal ko ah lii de mooy politique Sénégal yéene bi di ñëw ne teer bi ak raay bi ginnaaw bi mu fàttee juróom-ñaari bakkan libération naan lu doy waar la ñu gis accident bu amoon feete si biir xitaanu juróomi doomi aadama ñàkk ci seen bakkan ba ñuy génnee niiw yooyu la ñu gis kii di Modou Cissé dëkk Béteñe mu làq woon ca wet ga réeroon ay fan turbine yéene naan lii du ngeen ci wax teer wax naan jàpp nañu ko di ko toppee incest ak viol ak lu ci mënta am daal yanuñu yàlla defal jàmm